asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ne bàyyi xel Argentine TV ñi ngi amati mbégte di leen nuyu di leen ziar waaye di rafet looti ànd ngeen di ànd ak ñun. tey jii nag ñu leen nuyoo fii ci kër Serigne Touba Cheikhoul Khadim bi nga xam ne moo fegoo ak jumaa ju sell ji xam ngeen ne nag li ñu fi indi dafa jëm ci rek ziar bi nga xamante ne bii at mu jot fédération daayira Argentine yi. di daayira Serigne Touba yoo xam ne ñu ngi nekkee ci réew yu Argentine yi ak li ko wër dañuy ñëw di ziyaare si ci at mi ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim atum ren mu dëppook mun Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér loolu nag mbokk yi tey ci la ñu fas yéene ñëw defal leen ci benn reportage boo xamante ne bii euh, fépp fu ngeen mën a nekk rek da ngeen mën a dund ziar bi nga xam ne mbokki taalibe yi def nañ ko fii ci dëkk bu sell bi di Touba. lii njëkk nag mooy euh, gannaaw bi ñu ñëwee nag ci dëkk bu sell bi ñëw fii ci kër sëriñ Touba gi njëkk ñu gis sëriñ bi am na jataay su ndaw soo xamante ni jot nañ koo amal ngir tënk ci loolu rek lañuy ànd ak yenn euh, tuuti rek soo ko dellusiwaat. kon mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sunu sang Seydi Sayyidati wa Imaamul Mursalin noo ngi nuyu ñépp di siyaare ñëpp di am mbégte mu rëy ci ci jataay bu am solo bi nga xam ni moom lañu amal fii. jataay bi ku ne xam na yi comme ni mu daa amee ci at mu nekk rek maanaam noonu la amee sababu jataay bi dëgg-dëgg mooy dajale fédération Miftahoul Nasri bi nekk Touba Argentine nga xam ne fédération boobu ñeent fukki daayira ak ñaar ñoo ko tënk loolu moo tax mu nekk fédération ci biir ñeent fukki daayira ak ñaar nag ñoom ñoo dajale seeni addiya ci ndigalul suñu yi si Yàqooba ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la ko àndal yëpp ñu teewoon fi tey ngir indi seen i addiya te lu ko jiitu woon tamit publié wu nañ ko ci mbooleem gox-goxaan yi ak réseaux sociaux yi ba ñëpp mën koo dégg kenn ku ne xam ni bis bi tey la le 14 septembre tombé ajuma ji waaw yaakaar naa leeraloon noonu lu bari sax ci groupe bi pour xam ne ni sëriñ bi biñ jullee ba pare ci weeru bi mu teroo ci la fatoon ba ubbiwaat loolu moo waral sax mu xaw a sori tuuti julli gi hmm. loolu moo ko sabab waaye daan na gën a jege julli gi waaye nag sori julli gi loolu moo ko sabab ci biir de daayira yooyu nag am na ay lu toll ci fukki jëwriñ ak juróom-ñett yoo xam ni maanaam teew nag kenn côté ne def nañ ko li sax mënuñoo tudd surtout. fukki fukki jëwriñ yooyu ak juróom-ñett ñoom benn daayira bu ci ne am na ku la teewal ñi teewut xam naa yéene nañ. su ko defee loolu nag kon comme liggéey bi ndigal li moo doonoon bu jullee jumaa ba pare rek sëriñ bi daal di ñëw. ñu daal di dem daal di joxe addiya yi loolu moo nekkoon li nga xamante ni moo doon digal te murid moom digal rek ci biir lool nag addiya ji bi ñu ko xoolee parce que bi ñu ko wecceekoo ko fële ci Argentine addiya ji bi bi ñuy ñëw dafa nekkoon mille cent maanaam 17000 mille cent 17000 117 dollars loolu démb lañ ko wecceeku pour doon ko préparer biñ ko wecceekoo tamit benn dollar bu ne ñoo ngi ko wecceekoo 584 francs CFA bi ñu wecceekoo loolu ba ko lépp moo ngi nekk neuf millions neuf cent quatre-vingt-seize mille trois cent vingt-huit léegi ci biir loolu am na nag ay frais yoo xam ne da cee génn yu sew yoo xam ne ay maslaa la ak yi am ci loo xam ne moom mënta ñàkk ci biir loolu nag biñ ko génnee frais yooyu xaalis bi dafay des lu toll ci lu toll ci neuf millions huit cent mille kon ziar bi incha allah taala li ñu fas yéene jox sëriñ bi day nekk neuf millions huit cent mille am na benn mbokk taalibe bu ci teg 2000 francs CFA mu nekk 9 millions 800 2000 kon loolu mooy li nga xam ne moom la lañ fas yéenee jox sëriñ bi boolee ko ak kër Sëriñ Tuubaa nga xam ne jëndoon nañ ko te biñ ko jëndee mu toll woon ci 31 mille 31 mille dollars mu toll woon ci 61 mille dollars yooyu tamit xam na andiwul waaye incha allah bu ndee bi danañ ko tudd ndax loolu dafa bokk ci njébbalu addiya ji mooy kër xam ne jëndoon nañ ko lu toll ci 102 mille dollars loolu aussi dafa bokk ci njëbbal gi incha allah kon daal loolu lañ fas yéenee ziare su ko defee nag ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di ziare suñu mbokk yi fi teew yëpp di ñaan suñu borom bi nga xam ni moo mooy borom lépp ci barki sëriñ bi nga xam ne moo tax ñuy liggéey mu nangul ñuy liggéey bi ndax joxe addiye ku ne xam ne ni mu amee solo ndax keesu daayira bi ni mu toll maanaam kenn ku nekk maanaam ku ci joxe mille francs rek bu ñuy fay tuyaaba ji ni keesu daayira bi toll lu toll lan lay fay loolu moo tax njariñul booloo am solo kon loolu moo leen li nga xam ne dana nañ ko jottali mbokk taal bi fi ñëpp kenn ku ne dara bañ la cee bañ dara bañ la cee um su ko defee comme niñ ko defee nii nga xam ne liñ ciy jublu mooy kenn ku ne soo demee tey ji boo fi jógewoon bu la laajee ne la yëf nu mu demee maanaam di ko mën a leeral au lieu kon ngay basé wu ci yaakaar naa ni gars yi ban defee nangam bëgguñu kenn dox ci loolu mm-hmm. dañoo bëgg li ñuy leeral mu leer ci kanamu ñëpp mm-hmm. kenn ku ne dégg ko xam ni mu demee ku ci am lu la lënt tamit wala lu la ci yow tamit bu la neex nga laaj ñu leeralal hmm. nga xam ne ñun cër biñ ci am maanaam yéen ñëpp moom ngeen ci am ñun dañoo ànd ñëpp liggéey suñu tubaab tombeek ay nit bu ñàkk ay ay nit yu waaye liggéey bi ñëpp ñoo ko ba mboolem jëriñ yi maanaam ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi ñoo ko ànd yaakaar naa léegi ñun ñëpp ñoo ci bokk nekk hmm. kon xam naa damay jox suñu daam si kàddu yi bu amee lu mu ci dolli moom mu dolli ko ci bu ko defee incha allah comme soññee nan sëriñ bi soññee na bu ko defee bu ñu daal di dem ci salle bi daal di ziar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi mina seytaani rajim diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin amin mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal Cheikhul Khadim ñu ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalib yi fi teew yëpp ci jotaay bu am solo bi muy liggéey islam di jaamu yàlla bu mag muy liggéey bu jëm ci àllarba Serigne Touba kon ñoo ngi jaajëfal bépp daayira boo xam ne rek yaa ngi bokk ci ñeent fukki daayira yi ak nangam jël asandi ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax ñaan yàlla suñu borom addee ji bokk ci addee yi Serigne Touba di nangul boppam da fay na ci gëj gi fay ci barke Cheikh Khadim ni ko sëñ Moutala waxee rek noonu la démb ci wàllum wécc bi daa nekk démb jaaraat waaye ñuy jaajëfal jëfal Cheikh ibnu sëñ Abdou mi nga xam ne moom moo ñu ànd ak ñun ci ziar bi jàppale na ci ginnaaw ndigalul jëwriñ sëñ Yakhooba di nu booleeg moom ak sëñ Moustapha Dieng ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi rek wax dëgg yàlla suba ba léegi ñu ngi accueillir di dalal ngir siyaar bi mucc mucc ayib comme ni ko siyaar yëpp daan jaare waaye ñu ngi ñaanal sëriñ Cheikh Sidi Muxtar Mbacke yàlla sunu borom yokk ay leeram te taaf ñi ci barkeem ci barkeb Cheikhul Khadim te yàlla fayal ko l'islam euh, ci barkeb Cheikhul kon daal xanaa euh, kàddu yi dañ koy gàttal rek tey déglu ndigal incha allahu taala bu sëriñ bi joxee ndigal rek ñu ànd teew ci kanamam teewal kàddu mbooloo mi ci turu jëwriñ ngeen yónni ak liggéey ba fa nekk ngir yàlla suñu borom mu ñaanal na ci ay tawfeex ñaanal na ci ñu te ngërëmu Sëriñ Tuubaa yi wax ne waq ni xawaa iji lisi na daamu fi xidma ji waxab lahu maanaam wasalaamaaleykum bu ko defee comme ziar bi incha allah ni ñu ko sëriñ bi waxee muy sëriñ Cheikh moom maanaam na kenn ku nekk xam ni incha allah ziar bi ziar bu bu boo xam ne dañoo bëgg mu ànd ak euh, dal ànd ak yar ànd ak teggin ndax sëriñ bi wax na ni incha allah bi comme ñun ñii dong ñoo fay nekk dugub bi jërul xëccoo ak ak ak di bumaxanteeg yooyu mën ñoo def ndànk rek def lépp maanaam ci tamkiin teg ko ci adab su ko defee rek incha allah niñ ko bëggee danañ ko mën a amee noonu su ko defee rek moom bu ko defee ñu bokk ñaarante ñu ñëpp su ko defee suñu paate bu amee kàddu yu ci moom it ñu jox ko rek moom mu sànni ci kàddu ko jëwriñ la incha allah ñun moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum yéen mbokki waa Argentine mbokki ñi ñu ñëw fii déndaat yéen yi ginnaaw bi leen sante di leen ziar di ziar mbokki jullit yëpp ak mbokk taalibi yëpp Eh, eh, man li ma ci sama xalaat mooy rek maanaam li nga xam ne mooy at yi bi nii ginnaaw bi ñu nii jëwriñ yi defee maanaam ñu fexe ba ñëpp koo xam ne ku fi teew ku nekk bépp province boo nekk ci Argentine mu leer sa bopp ne lii lañu indi jox ko sëñ bi ngeen ñu bàyyi xel loolu ba ñëpp buñ demee ñu gën a jaajuwaat gën a góorgóorluwaat gën a yokkaat suñu jàmbar bu ëllëg parce que xam nga Argentine xamaa gay leer leeruñ ko mais xam ngeen liñ indi tey ci xaalis daaw amoon na liñ indi ren moo ëpp li ñu indi li amoon ci xaay maanaam toogu xaay bi amoon daaw ak toogu xaay bi am ren bee moo ëppoon fuuf mais àggul loon ndax daanu gi nga xam moom la xaay bi daan moo waral kon nag war a gën a yokkaat suñu jàmbaar wala góorgóorluwaat ci addee Serigne Touba bi di ko yokk ba bu ko indee fii rek mu mat lim bi nga xam ne moom lañ bëgg mu yokk lool tonu lool ñu ñaanal yàlla ñëpp nag yàlla defal ñu jàmm ak tawfeex ñu delluwaat ci jàmm yàlla defal ak jàmm ñu ñëwaat ci jàmm indiwaat xew bi a bari jërëjëf ñu ngi jërë ngeen jëf comme loolu Pathé wax liñ ci liñ ci liñ mooy comme ñun ñoo jiite commission au compte nga xam ni lépp loo xam ni day dugg ci ci fédération bi ci addiya maanaam ci ñun lay jaar comme ni mu ko waxee noonu la demee ndax boo dee xool daaw li ñu indiwul maanaam li indi ren ñaarte na ko ci jëf ci ci ci peso ni mu ko dajalee waaye boo dee xool tey ji ren jii maanaam daaw li indiwul maanaam onze millions yu tegal huit cent mille yu tegal loolu yu manqué douze millions yu weccet ren te daaw daaw loolu ñoo ngi dajaloon li liñ dajaloon bu ko xaymaa ci peso day nekk trois cent mille peso mhm. léegi nag ren jii liñ dajale maam mat na cinq cent et quelques mille peso mhm. nga xam ne maam ñun ren ji bu fekkoon ni ni ñu ko yéene ak ni ñu ko bëgg amee nañ ko noonu kon ren lu mu gàtt-gàtt dinañ joxe vingt deux millions mhm. wala boog vingt millions yoo xam ne day day topp yéene jooju leen am te tamit moom lañ dajale dañ nag réew moom moo soppeeku waaye ñun moom yoon ñoo ngi sant sëriñ baax a baax di ñaan sëriñ mu yokk xewal yi mm-hmm. képp koo xam ne def nga ci dërëm wala nga teew ci jataay wala nga yéene yaa xam sa aajo noo ko bëggee ak ak ak la gënalee mm-hmm. yàlla la ko sëriñ jàpp mm-hmm. ko defal ñu ay tawfeex yu ànd ak uh, ay xewal ñu ñun ñëpp ñu bokk teew ko ay déwéni déwéni déwén incha allah mbooloo di yokk xewal yi di yokk wér gi am sëriñ bi tamit ñàgg fee nekk ñàgg ko fee fekk mbooloo mi sëriñ bi defal na ay tawfeex ñu ñëpp kenn bu ne rek li nga bëgg ak li nga yéen yàpp xam sëriñ bi defal la ko bi xurmati Qur'aanul Kariim salaamaaleykum xam bisimilah maa maanaam li may yëg bu ko waxul fii ba jógee fi ëllëg dara mën na ma cee toog ndax liggéey bi ngeen di def yàgguma ci groupe bi waaye dama cee mat seede liggéey bi ngeen def di liggéeyal Serigne Touba ak di laaj addiya man nag li may wax jëmale ma ko ci yéen yéen dama ne di ñaanal seen taxawaay yàgg ak mboolem taalibe yu fi nekk ñun àndal liggéey bi sama waajur bu ma saan jàpp sama loxo di ñu yóbbu di ñu présenté sëriñ bi ñu koy ziar mu ñaanee ne sëriñ bi yàlla na fi yàgg téwér danaan ak dongo yi dongo yi ñoo yàkkamtee xam ne bëtum sëñ bi ba def ci lu man ak lu mënul ba tax na ñi ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw ñii ci liggéey bi mu nekk ñun lay ñaanal saabar mi defal ñu tawfeex te ñu gën cee soññee te xam ne ñii liggéey bi ñuy def defuñu ko mu jëm ci seen poos wala mu jëm ci beneen safan parce que man am naa ci firnde teg naa ci sama lépp loo xamante ni lu jëm ci fédération bi la ak ci daayira bi ci jaan la lay demaat li leen mën a yombal liggéey bi nag mooy ñun ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw loolu rek laa ne woon naa ko ci sànni. maa ngi baax ci kàddu bi di jërëjën jëf mbokk yi gannaaw bi ñu génnee ci loolu nag xam ngeen ne ci la ñuy dem nag ci ki nga xam ne tey jii moo fi sëriñ Touba muy Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mamadou Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jébbal ko nag li nga xamante ne bii moo jëm ci wàllu addiya yi. Euh, kon nag ci jataay boobu lañuy ànd ak yéen euh, ci teewaayu Serigne Mountakha euh, soog a dikkaat. waa Argentine. sëñ Dame Cissé. def leen ndànk rek ndànk rek. Dame Cissé. ñëpp a ko liggéey. waaw am nañu ko. waaw am nañu ko. waaw. li ñu des nañ topp dégloo. li ñu des nañ topp dégloo. waaw. li ñu des nañ topp dégloo sëñ Dame Cissé. di ko jëbal liggéey bi. aussi ñu jëbal ko li ñu koy jëbal. ñu naan la. may may tuuti rek ma def li ma war waaw may ko moom moo yor kii bi quoi kii dimbale ñu rek su ma defoon liggéey bu àgg. neuf neuf millions huit cent mille. ah jëlal rajo cent deux huit cent deux mille waaw cent deux mille. leeral leeral ko ni nan demee. leeral la liggéey bi nan doon def. kenn ci yéen naka leeral mu ne nga wax mu téye mu leer àndal ak daal na mu jaay nga gis. waaw. dégg nga si li nga wax bu baax rek àndal ak daal nga wax. suñu daam. boo ko jógee mu leer nañ. salaamaaleykum. wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu wàññi tool bi. Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké. ñoo ngi lay ziar bu baax Mbacké. dégloo mu kii dañ ko may mu déglu kii. dañ ko may mu déglu. Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké. ñoo ngi leen di bu baax Mbacké di la ziar. ñu ngi leen di la ziar ci daayira bu mag ba fa nekk. muy Miftaahu Nasri di fédération Touba Argentine ci kilifteefu Serigne Yakhouba Gueye ak Serigne Bamba Niang ak mboolem mbokki taalibe yi nekk Argentine yëpp ñu ngi fii sa ginnaaw Mbàkke di la nuyu di la ziyaara bu baax a baax di la fekk di la fàttali ne di la wax ne mbooloo mi nga xamante ne ñoo nekk Touba Argentine di liggéeyal Serigne Touba. ci kilifteef sëñ Yacoba Gueye ginnaaw bi seen Saliou Mbacké yàlla na ko yàlla ci barkeel moo ñu joxoon kuréel bu na fi barke Balla boobu ba léegi ñu ngi gis ci ñaanaloon ba moo jur ñeent fukki daayira ak di ñaan borom addi ji dëkk yow mu nekk addi noonu yàgg la fee fekk da nga yàgg ko ci barke Seexul Xadim ginnaaw loolu sëñ bi ñu ngi jéem bu baax ci kàddu yi waaye tamit am jënd na fekkee sëñ Tuubaa boo xam ne ñu ngi ko jëndee cent deux mille dollars wala cent quatre mille dollars loolu ci tawfeex Cheikh Khadim la bokk ci Touba Argentine ko jëndee kon daal bi ñoo ngi sàpp ci yow nga ñaanal leen yàlla suñu borom kër boobu ñu naar ko taxawal ko te fekke ko da daje ci ngërëmu Sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu mbokki julli yi mbokki taalibe ñoo yóbbante woon ak ñaan nga sàpp ci yow ak ñaan nga ñaanal leen yàlla ci jafe-jafe am ci Touba Argentine ndax suñu tool yi xam seen jafe-jafe yi bari na lool ci wàllu autorité ba ca wàllu nekk ba ci dëkk ba ci wàllu addiya yi ñu leen dañu kat dañu fa bàyyi seen bi mooy jaamu yàlla ak liggéey ak yàlla seen Tuubaa ak lu jëm ci doomam kon ñoo ngi koy sàkku ci yow nga ñaan yàlla ci sa barke ci barke Cheikh Mouhamadou Bachir ci barke sama Cheikhul Khadim mu leer mu nooyal mu nooyal waa Atlantique ba mu nooy lépp ba lépp loo xam nekkoon ci ay jafe-jafe Mbàkke mu jeex tàkk ci barkeb Seexu Xaadim ñoo ngi la koy ba jafe-jafe yi jeex ñëwal dëkk fa te bul fa jóg ban am li mu fay wuti ngir ndimbal ak yërmande rek moo doon fa bàyyi Mbàkke ak addi bi mën a addi yàlla Sëriñ Tuubaa man cee jaamu yàlla ci jamono kon daal loolu sëñ bi ñoo ngi jégalu ci kàddu yi ndax war na toog sax di yëkkati ay kàddu waaye ñoo koy jégalu baax na kàddu bi ñun yóbbu ko ci jëwriñ sëñ Yaxuba gi ñoo ngi lay siyaare baax ñaan yàlla nga yàgg fi loolu dëgg ak barke ci Mbàkke salaamaaleykum salaam mbokki taalib yi jóge Argentine sëriñ bi daa lii sëriñ daan Cissé wax dégg na bu baax daa wax ne dégg bu baax sant na leen gërëm leen kàddu yi jot na leer na. léegi sëñ daal bi daa wax ne jot leen ak santam wax ji ngeen wax na nañ xam na nit parce fa ngeen nekk nekkandoo fa nekkal fa Serigne Touba dañu def addi ba ànd ñëw fii ci kanam moom liggéeyal Serigne Touba rek moo leen fi yitteel ak ni ngeen ko wax sàkk fa ngeen si njaboot Serigne bi nag dégg na li ngeen ko wax lépp ñu ngi leen koy ñaanal baax ngeen daje fa tawfeex Serigne Touba day wax ne tawfeex Serigne Touba fu ko waaye am yàlla day yombal si lépp day yéwénal si lépp day barkeel si lépp kon Serigne bi naan yàlla ngeen fa daje tawfeex Serigne Touba ngeen nuyoo ko bokki taalibe yi fa nekk te ngeen gën a rafet njort bu baax te dalal seen xel dañ feetali laxasaay yi rek sëriñ bi day wax ne mi ngi leen di dalalem xel mi ngi dalal daal yëpp am xel ndax yéen ji mu am ci liggéeyam sëriñ Touba parce que bi mu gis ci taalibe ak seen yitte dalal na xelam xanaa da leen di def rek am soññi di ci soññi boppam waaye di leen soññi rek ñu fa seen laxasaayam liggéey sëriñ Touba boo ko seet soo ko jógee Sëriñ Tuubaa rek comme Sëriñ Tuubaa kat loolu tam fee xam lépp dina yomb lépp dina yomb lépp kon jërë ngeen jëf yéen nuyu yàlla na fi yàgg Mbàkke jërëjëf tabaarkalla jërëjëf yàlla na fi yàgg Mbàkke sëriñ bi nee na mi ngi leen sant baax ci yitte yi ak taxawaay bu rafet bi ngeen taxaw leen noonu waaye mi ngi leen gàttal rek ñaanal rek sa borom gàttal leen fa ak tawfeex sëriñ bi suñu borom yombal lépp yéene lépp barkeel lépp nag jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal nag ci ñaan bi

yàlla nañ fi yàgg jërëjëf mbokk yi jërëjëf Serigne Gora Seck mi nekk foofu ca Argentine euh, ci lépp lu jëm ci wàllu télévision bi ak technique beeg régie baak yu mel noonu ak Serigne Cheikh Sam mi ñu àndal. xam nga ne nag euh, lu am solo la ndax lu ëpp juróom-ñeenti million ci koppari CFA jébbal nañu ko sëriñ bi muy lu am solo loo xamante ne bii. Euh, loolu nag kon dana tax ñu àndaat ak mbokki taalibe yi nag ndax jëruñu daayira yi fi daje dafa bari ñu mën a wax nag ñoom itam soññ mbooloo yi topp seen gannaaw wala leer leen itam euh, liggéey bi nga xamante ni bii jébbal nañu ko sëriñ Mountakha. wasil jamiahum bi wasilihi sallami wasal tahajjuda laylen wajal suyuqi wa awraadi mahi abadan إلى الجنان وبسلك أحسن السبل يا ربي صل صلاة لا تقادر أبي على المصطفى واغفر به سلمي يا ربي صل صلاة بسلام على خير أما يسكون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين